بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته man seen mbokk Abdoul Aziz Touré fii ci Fass Touré maa leen di nuyu bëgg waxtaan ak yéen tuuti ci ngoonuk tey jii di àllarba di ñeenti fan ci septembre deux mille dix-neuf damaa jotandoo ay coup de fil téléphone yu bari am na ci jóge Ndakaaru am na ci benn bu jóge Touba ak sax ci biir dëkk bi Fass Touré ñoom ñëpp ñu di naqarlu waaye itam ñu am benn laaj bu ñu bokk di ko laaj ñoom ñëpp wala bokk ñu ëpp ci ñoom di ko laaj laaj bi mooy lu aju ci njabootu sëñ Hadi Touré sëñ Hadi Touré nag maa ngi ci jublu sëñ Hadi Touré bi dëkk Fass Touré te sëriñ Siise Touré di woy juram wu góor soxna Mbàkke jaxase moom xaalima jaxase bi yaayam sëriñ Hadi Touré moom nga xam ne moo jàngi woon ci waawan sëriñ Xaaji Malik Si radiyallahu anhu di sëriñam moom laa moom lañu may laaj njabootam ñi fi ñi ciy dund léegi fi may tàmbalee mooy njabootam ñi ci ay góor man mii di wax ak yéen di Abdoul Aziz Touré maa ci mag léegi maay ki ci mag ci ay doomam ci ñi ciy dund ay doomam ñuy dund itam ci jamono yi ñu toll bareetuñu man mi ci mag ki topp ci man ci âge ñu ngi tudd Sëriñ Ahmadou Touré man soxna Ayda Si mooy sama yaay rahmatullahi alayha maak sëñ Maodo Touré ak sëriñ Moustapha Touré ak sëriñ Fass Touré ak sëriñ Ahmadou Touré ñooñu ñooy ñi soxna ay desi am ci ay doom yu góor sëñ Hadi Touré di seen wayjur sëñ Maodo Touré ñi mu bokkal yaay ci waa kër sëñ Hadi Touré ki ci mag mooy sëñ Moustapha Touré ki ci magoon mooy ku jëkk a gaañu taawu sëñ Hadi Touré bi jëkk a gaañu te ba muy xale bi muy jàng alquran yonente mi ngi ko tuddee woon sallallahu alayhi wa sallam booba xale xale la mi ngi jàng alquran mokkalagul woon sax booba la gaañu soxna Ayda moo doon yaayam waaye gannaaw bi sëñ Moustapha Touré moom sëñ Hadi mooy baayam soxna Ayda si mooy yaayam gannaaw sëñ Moustapha Touré amoon na keneen ku ñuy wax Ahmad Touré mu tam dafa teel a gaañu ñu ngi gaañoon Ndakaaru yàgg na walaak léegi ëpp na soixante ans bu mu gaañoon léegi gannaaw Ahmad Touré moomu soxna ay desi ñu ci teg Alxaaji Malick Touré wala sëñ Maodo Touré bi nekkoon ci waawan te gaañu bu yàggul gannaaw sëñ Maodo Touré sëñ Fass Touré sëñ Fass Touré moo nekkoon yéen ci jàngale foofu gannaaw sëñ Fass Touré nag man nii di Abdoul Aziz Touré di wax ak yéen te mag ci doomi suñu xaadi yi léegi gannaaw man it amoon naa rek ñuy wax Sëriñ Babacar Touré mu tam mu génn àdduna yal nañu yàlla yërëm ñoom ñëpp léegi ci jamono yi ñu toll nit ku góor koo xam ne suñu xaadi mooy waay juram mooy baayam soxna ay defi di yaayam kenn na ci def ci kaw suuf muy man ñu wax ak yéen maanaam amul beneen doom boo xam ne sëñ Hadi Touré mooy baayam soxna ay def yi di yaayam ku dul man ci jamono yuñ toll ci kuy dund amatul amma ñi nga xam ne sëñ Hadi Touré mooy seen baay te soxna ay def yi du seen yaay waaye ñu nanee seen yaay ñoom itam bariwuñu ndax gannaaw man ñett rek lañu muy sëriñ m sëriñ Ahmadou Touré yaa ak jaxate moo doon yaayam sëriñ Moustapha Touré yaa roqee ñan loolu góor gi xaari ñu rahmatullahi alayhima moo doon yaayam sëriñ Ousmane Touré sëñ Ousmane ñaan Touré mu ngoog moom tam sëñ Hadi mooy baayam soxna Fatou Touré di yaayam ñii ñooy góor ñi nga xam ne ñi ngi dund ci kaw suuf te fekk sëriñ Hadi mooy seen wayjur am na jigéen jigéen ñi nga xam ne sëriñ Hadi moo leen jur te ñuy dund soxna Aminata Touré te nag foo ci Ndakaaru doon soxna si El Hadj Lamine Kane yal na ko yàlla yërëm mu ngoog moom am na nag ay rakk yu jigéen ku demee ne soxna Ndeye Touré soxna Aseeti ñoon ñoon jigéen ñi lañu waaye rek ma bëgg a leeral mbokk yi laaj ndax sëñ Hadi Touré dafa am beneen doom bu ñu wax askiya wala nangam wala neneen ma bëgg leen a xamal ne sëñ Hadi Touré bu dee bi ci Fass Touré la te jànge woon ci waawan tey boroom xam-xam bu Sénégal gépp xam nak astronaute nak poète nak boroom xam-xamu diine nak ku tënku woon ci sunna kooka jamono yi ñu toll ay doom yu góor yi mu bàyyi ñi ciy dund ci jamono yuñ toll ku tudd ak ciya amu ca ñi ciy góor jamono yuñ toll man ñii di wax ak yéen maa ci mag man man laa Abdoul Aziz Touré maa jiite daale Fass Touré kii ci topp ci man ci aaj te bokk ñu yaay waaye ñoo bokk papa mooy sëñ Ahmed Touré sëñ Moustapha Touré toppaat ci sëñ Ousmane Ñaan Touré toppaat ci ñooñu ñoo nekk ci kaw suuf ci ñoo xam ne sëñ Hadi Touré mooy seen wéjur loolu moom lay tontu mbokk yi nga xam ne ñooy téléphoné ak di yóbbante ak di yónnee di laaj dafa ñoo bokk leen leeral ci njabootu sëñ Hadi Touré ci jamono yi ñu toll mu ngoog loolu moom laa bëgg a leeral Sénégal yëpp dégg ko njaboot bi dégg ko mbokk jullit yi dégg ko Fass Touré itam yi nga xam ne lii moom la fi sëñ Hadi bàyyi muy tënku ci alquran tënku ci ndigali borom asamaan ak suuf topp ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tënku ci ay ndigalam loo xam ne lii def nañ ko ñun waa Fass bu bokkut ak loola ah loola kon noo ko defal sunu bopp waaye it bëggoon na maa leeral Sénégalais yi ni Hadi aw tur la rek Touré it aw sant la rek Hadi ñu baree ko tudd Touré it ñu baree ko sant kon nag bu nit ne man Serigne Hadi Touré mooy sama baay war nañ koo mën a laaj ban Serigne Hadi Touré ndax suñu la faati bii sax boo fi ñëwoon fekk fi ay Serigne Hadi Touré yu bari yoo xam ne ay doom lañu ay fils lañu maanaam am na fi Serigne Hadi Cissé Touré kuy góor gi ñuy wax Cissé maanaam mooy woy juram Serigne Hadi Yeew Touré góor gi ñuy wax Serigne Yeew mooy woy juram ay Serigne Hadi lañu boo demee gasaan Serigne Hadi Touré ma nga fa koo xam ne kii sëñ Moustapha Touré mi taaw sëñ Hadi moo ko jur ma nga fa kon sëñ Hadi Touré dafa mën a yaatu bu baax te fekk sax ci biir famille Touré la bokk waaye itam dafa mën a yaatu te fekk bokk ci biir famille Touré Hadi Touré kay boo demee Hadi kay aw aw tur la rek képp kuy jullit te sant tudd Hadi man ngaa sant Touré te fekk te fekk ci famille bi nga bokk wala fa sax bokkoo ci famille bi mën naa am wolof nga mën naa am soose nga mën naa am susu nga mën naa am malien nga Touré sant la rek wax ne dafa yaatu na Touré sant bu yaatu la Sénégal yi ñoo war a yeewu leneen li ci def mooy Sénégal yi dañoo war a dindi ci seen bopp yi affaire sant ak affaire di way sama maam nañuy xool ni alquran xool loo ni ñu dellu ñu nekk ci alquran bi suñu problème yu bari yi ñuy dund man loolu depuis ay at depuis lu mat cinquante ans mi ngi ma def wax sama waxtaan samay conférence problème yu bari yi ci Sénégal lenn rek ko mën a di di mooy nu bokk dellu ci alquran dund ko muy suñuy pas-pas di suñuy jikko di suñuy doxalin ñu jaar ci ndigali borom asamaan ak suuf topp ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toppit nag ci sunu mag ñu baax ñu fi nekk loolu tam dama koy wax topp ci sunu mag ñu baax ñu fi nekkoon jàngal ñu alquran jàngal nu sunna teete nu ci sharia jaar ci yoon woo xam ne wii yoon wu leer nañ ñi la buñ ko ko jàdd yaa ko jàddal sa bopp loolu il faut nu tënku ci te bañ cee yox yoxi tant que defuñu ko nag dañuy bari ay problème rek alquran lan mooy principe am ci askan nit ci aw sant kii nii la sant kon nag daal ne baax ci saa si sant woo xam ne ku ko sant rek baax nga ci saa si wala sant wax la ko sant rek am nga xam-xam ci saasi loolu sant amul loolu alquran min nu ko jàngal ci qissatu nuuxin alayhi salaam ak doomam ja nuux dafa woote ci diine ji ko yàlla wooteloo ay at yu bare bare bare bare waaye ñi ko wuyu ci ay nit jamonoom bari wuyu ña ko gàntu bañ ko wuyu nag am na ku ca bokkoon koo xam ne doomam la waaw doomam doomi yenent yenent yàlla wo woote ci diine am ay nit yu wuyu moom mu lànk dem ànd ak ña wuyuwul gàntu ah ba yenent yàlla nu woote woote ba diit ba mu war a woote jeex suñu borom yàlla fas yéene alak mboolem ñi ko ñu àndul ak moom ñi ko wuyuwul ah yenent yàlla nu dafa jóg di di tinu doom bi waaw suñu borom yàlla da ko arsale bu baax nekk naa ko ci moo doon firi saar wa ñu wax suutul xaqa ñi nga xam ne loolu da leen itteel ñu dem ci youtube ñu seet tafsir suutul xaqa bi Abdoulaye Sall defoon ñu ca fekk xisatu yonent yàlla nu wax moom ak doomam bi ba nga xamee ne bi yonent yàlla nu wax sab yonent la te ci ulul azmi la bokk ci yonent yu mag yi la bokk bëgg naa tinu doomam ji dëng ja suñu borom yàlla da ko arsale da ko ne bu ma laajee ci loo xamul na mu di kay mu ngoog ah arsala ko ba mujj mu tiit ba mujj da doon xalaat sax moom mbaa du ñàkk martaba yi mu am ndax rek ñaanal doomam te doomama xaqan waaye doomama ci deret waaye suñu boromal dafa ne di sa doom innahu amalun gayru saalih mooy inna ibni min ahli la yoon ci yàlla nuuxin wax sama doom ci sama njaboot la bokk wa in waadaka al xaq te yow yàlla loo digge def ko ci yaa ma noon dinaa la sowe yàtta njaboot sama borom yàlla da koo arsanat innahu laysa min ahlik kooku nga naan sa njaboot la bokk bokkul sa njaboot innahu amalun gayru saalih kooku defkatu jëf ju baaxut la ab yonent doomam du doon defkatu jëf ju baaxut yeneen qiraat yi yeneen qiraat yi dañu daan innahu amila gayra saalihin innahu amalun gayru saalih ak innahu amila gayra saalihin li tax du sa doom li tax bokkul sa njaboot mooy dafa jëf-jëf joo xam ne ju baaxut la kon boog sañ Haadi Touré bu doon dund taawam sëñ Moustapha Touré di dund sëñ Moustapha Touré ñëpp xam ne mooy taawu sëñ Haadi bu jàddee tànkam fa sëñ Haadi tegoon tànkam nekkatul doomu sëñ Haadi kon boog dindi leen ci seen bopp yi yéen waa Sénégalais yi dindi leen seen bopp yi diw nangam la sant diw diwee baayam diw diwee maam rek kon nag daal nay baax déet baax kat ajuwul ci aw sant wala ci baay wala ci maam ci ay jëf ay pas-pas ak jikko ak ay jëf ci la nit di baax ci lay bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf noo xamal ne li nit di gën a nit inna akramakum inda allahi atqaakum alquran la alquran la sax suñu borom yàlla ma ko wax bopp dana ñi gën a sedd fi yéen mooy ñi ëpp ko ragal yàlla yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam sedd la wax jooju daal dina ak taqwa haahuna ak ragal yàlla ci xol lay nekk xol nag mooy buuru cër yi xol bu ragalee yàlla bu jubee làmmiñ bi jub bët bi jub nopp bi jub loxo bi jub tànk bi jub nit ki jub xol nag bu dëngee lépp dëng mooy leneen boo xam te beneen xadis sallallahu alayhi wa sallam ndax du ngeen moo ñëw mu wax leen dafa ne am na ci yaramu doomu adama ak cër boo xam ne bu baaxee nit ko lépp baax su bonee lépp nit ko lépp bon te mooy xol ba kon boog ma bëgg attirer seen attention yéen ñuy déglu ci ñetti point bu jëkk bi mooy leeral naa leen njabootu Sëñ Haadi Touré te man maam ak ci ay doomam léegi leeral naa leen ñi mu am ci kaw suuf ci ay doom yu góor yuy dund yuy dund waaw ku ngeen dëggul turam ci ñooñu Sëñ Haadi da koo jurut loolu leeral naa ko leeral na ñaareel leeral naa leen ni Sëñ Haadi Touré mooy sama baay wax jooju dafa mën a wàgg ndax képp koo xam ne Haadi nga tudd rek mën ngaa nekk Sëñ Haadi te itam mën ngaa sant Touré su ca gën a ku ñu Sëñ Haadi Touré rek nga daal di seet daal koy tudd Sëñ Haadi Touré ba ca faas ñëpp xam ko ndax xëy na yàkkamti wala wala yu mel noonu loolu tam tey da cee baax ñetteel ba mooy même bu fekkoon ne loolu dafa am Sëñ Haadi Touré ñi ci faas ñu ñëpp ñu xam ko man bokk man ma xam ko man bi ma juddoo ba farum soow musuma génn loxoy Sëñ Haadi Touré moo ma jàngal moo ma yar musuma jàngi fenn lenn lu dul ci moom moo ma jàngal lépp ba ni mu génn adduna mus adduna musuma fanaan àll musuma génn ay loxoom kon xam naa ci moom lu bari tënku ci tawxiid bu baax tënku ci sunna bu baax tënku ci mag ñu baax ni liñ fi andi woon ci tasawuf boo xam ne day tënku ci alquran ak sunna tënku ca bu baax yaru ca yar ca njabootam yar ca ay taalibeen ba nga xam ne bi sayhaat yi ku ko noosoo ku ku ku ko xam bu baax a baax boo fa jógee dootoo dana jafe boog nga am ab sëriñ dana jafe nga am ab sëriñ ndax ba ngay gis ne daal sayhaat yi ni na lool ci yàlla ci wéetal yàlla ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fonk alquran ci fonk ndigali yàlla ci jub ak jubal ci woote ci njub waaye si naa di moomu laa ne ci jamono yi muy dund sax laa wax ab taawam di mag ci ay doomam yàlla na fekk sama ay di si mooy yaayam si naa di si muy taaw si naa di taaw sama ay da bu teggee tànkam sa si naa tegoon tànkam di def leneen lu bokk fi yàlla bëgg ak yonentam li alquran wax mooy innahu laysa min ahlika innahu amalun gayru saalix wa fi qiraatin innahu amila gayra saalixin mooy bokk ci jamono suñu xaar loolu mooy point ñetteel ma bëggoon a leeral Sénégal yi léegi nag kon loolu leer na bu baax maa ngi nuyu ñëpp di jéggulu ñëpp su ma sañoon man ñu bañ maa boole ci wax yi nga xam ne mooy wax yu xew yu bari léegi ci affaire réseaux sociaux yi man damaa bëggoon saa baat bu jibee rek fekk damay jàngale damay jàngale it natt diine su jibee rek fekk damay leeral lëf lu bokk ci diine ji man loolu laa sasoo loolu laa bëgg féete te na ma ñëpp bàyyi ma féete ci loolu bu ma kenn ëcc bu ma kenn xëcc nañ ma bàyyi ma ma ma sax ci jàngale diine yàlla ji waaw ña tànn musique di di musique ka fecc ña tànn way ña tànn politique kenn ku nekk tànn nga sa bëla neex man tànn naa jàngale alquran jàngale diine l'islam bi sell te ñaanuma yàlla ngeen dégg ma ca ngeen dégg ca ngeen dégg ma ngeen caa wala sama bopp wala sama maam wala sama len dama bëgg ngeen ñaanal ma man tam ma jàngale rek li yàlla bëgg ak li sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkoon te jàngale ko ni mu ko bëgge moom yàlla te bañ caa wut lenn lu dul gërëmal sa borom yàlla tey tam ma bañ caa dugal lenn tey tam ma bañ koo def ngir kenn bañ koo def ngir lenn lu dul jëfe ndigalal sa borom yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam na ma ñëpp ñaanal ma sax ci loolu li def sama dund lépp ma jëmale ko ci loolu te yàlla nungul ma ko sa jéggal maa ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp mu nga réseaux sociaux yi ak coow yu bari yi ci xew man su ma fi ñoon du ma ci bokk waaye nag lii dafa doon loo xam ne pour wuutuma ci yombul ndax ginnaaw ci suñu xaaj yi la ñuy laaj ba xam te li ñuy laaj seen àllul ana kan ak kan la suñu xaaj yi am ci ay doom yu góor ñuy dund ah man ma mag ci ñi doom yi suñu xaaj yi ñu dund boobu laaj naa ko mën a tontu tontu naa ko it maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu